waa mahad hikmatul yawmi li tarbiya al islamia wa taalim di institut hikmatul yawmi pour l' éducation et l' enseignement ñoo leen di may xikma bi ku ci bëgg leeral ngir bëgg fee andi setu tànk ñu jàngalal la ko alxuraan yaral la ko ci ak taalibe nga woote ci 77 633 77 56 tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar sunu sëriñ borom Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa afisahullah waraa di ñaan nag taalibe bu ko déglu nga jottali ko sa mbokkum taalibe ku ko def ku nekk yàlla na nga bokk ci ñiy jëmmal naali Serigne Touba yi nga xam ne nii xanaa lu ci ak seegul waaye suñu borom nangul na ko lépp ba lu ci nekk rek waxtoom rek lay nekk ah Cheikh Mamadou Mountakha nag ku na xam ne ne melokaanam wi moom la ko ñëpp mas a waaye rawatina nag bi mu doonee jëmmi sëriñ tubaa kon ñoo ko ñaanal fanoo gudd ak wér ñoo ngi ñaan na ñëpp. fu waay di toll tey dégg sama kàddu rek fii may waxee yow nanga nga wax Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér Serigne yàlla na fi yàgg te wér Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ak yàggam fee amal na njariñ lislaam amal njëriñ jullit ñi waaye rawatina ñun taalibe Serigne Touba ndax kat waxtu wu nekk moo ngi yéegal sunu pas-pas ak sunu paseef di yeesal sunu xol ci lislaam ci taw tawxit waaye di yeesal sunu pastéef suñu diggante ak Serigne Touba bañ man koo jariñoo àdduna ak àllaaxira la mu waxoon ne ñeewul kenn ci sëriñ tubaa de képp ku farlu itam doo ñaa doo ñee benn taalibib Serigne Touba ci Serigne moo xam ci ñi fi jaaroon la wala ñi ñëwagul la kon Cheikh Mamadou Taxa yal na ko suñu borom tabaaraka wa taala fayal wax jii mu wax na nga xam tay la ko wax muy wax ju rëy rëy dafa bokk ci ñaan yi nga xam ne nii sëriñ bi suñu borom tabaaraka wa taala daf ko ko may ba noppi ba noppi ma doo ko ko ñaan ndax sëriñ bi dafa wax ne lépp lu ngeen gis ma ñaan ko xam leen ne suñ borom may na ma ko ba dolli ma lu jiitu may yëkkati samay loxo di tàllal maddal li al mat wa maddal li sayet man li yaqulu xaaka qabla yet loolu moo ko bind waaye sëriñ Muntaxa dafa dégg sëñ Tuubaa te gëm sëñ Tuubaa te wóolu sëriñ moo tax mu wax wax ji te mooy yitteem ak yéeneem li ko gënal mooy Lac de Guiers ndoxum Lac de Guiers ñëw Touba ñu di ko jariñoo bu doontoo nag euh, madrasa bi nga xam ne nii kat dafa yëmut rek ci ñaanu Serigne Touba waaye dafa doonoon ay naalam yoo xam ne nii jëflante woon na ci sëñ Bakki Bousso lu bari lu jiitu ak demam ci zahir nee na loolu dafa jàmp moo tax bi mu ñëwee mu song ko waaye konoon Lac de lay song ko waaye kon lañ ci déggee mooy Lac de Guiers kon léegi tey mu ñëw Touba incha allah yàlla nañ ko fekkee te ko ci barkeb Cheikh Khadim ñu barkeeloo waxi Cheikh Mouhamadou Mountakha te dellu siwaat ci waxtaan bi incha allah. yitte dëgg-dëgg. nee na moom nag li yitteem dëgg-dëgg. sama bànneex. bànneexam mu gënal ma. mu tam moo ne ñu indi ndoxum Lac de Guiers bi ci Touba. moo ne ñu indi ndoxum Lac de Guiers bi jàngu bu rëy bii. doonte jàngu bu rëy bii. nga xam ne fi la ko sëriñ bi bàyyi. nga xam ne fi la ko sëriñ bi bàyyi. mu xam ne moom bu ñu ko ko defaloon itam. defal nañ ko ko ba noppi. moo xam ne buñ ko ko deful loolu itam defal nañ ko. yàlla nee na suñu defal na ko ko. nee na suñu borom defal na ko ko ci barke bi bi. ci barke bi yonent bi. loolu moom. loolu yitte jooju nag. nee na yitte jooju nag dafa jàmp lool. dafa jàmp lool ndax bi ma jógee rek. moo tax bi mu jógee. mu daal dal ci kawam. mu njëkkee dal ci kawam. waaye bu dul woon loolu. nee na bu dul woon jàmm rek lay songu. laajte guerre rek lay songu comme yow que allahu akbar ah Lac de Guiers kon booy boo waaj. te xam ne yaa ngi ñëw Touba incha allah kon nag lii ku ko dégg ku nekk sa xel war naa gën a dal ci ne sëñ Touba day dem tayam ju ne gàcceel na démbam du fi jëg mukk tay la fi gën a ne kon rek mbokk yi ñun ñi nga xam ne ni amuñu lu dul moom yaakaaruñu lu dul moom nañ yokk suñu pas-pas ak suñu pasef ci moom te gën a dalal sunu xel gën a seddal sunu xol te xam ne liñ am ket kenn da ko amut Cheikh Amadou Fadal wax na ko liñ am wala kiñ am kenn amu ko ci àdduna ak àllaaxira waaw kon nag a ah, nañ yokk suñu pas-pas ak suñu paseef rawatina nag ba nu seen borom booleeg kilifa goo xam ne nii kat gu gu mel ni Cheikh Mouhamadou Mountakha xaalaa ci eh, sedd ab xol ak ci dal am xel koo xam ne nii kat moom ma ngi ca waar wa ku dem mu dem ku demul mu dem képp ku bëgg a dem ànd ak moom dana la yomb kon yàlla na fi yàgg lool te wér bu ëllëgee ñu indiwaat leneen ci eh, yi nga xam ne nii day dolli suñu pas-pas suñu diggante ak Cheikhul Xadim ñoo ngi talalaal loxo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi ci liggéey bi ñuy liggéeyal Serigne Touba ñun waa daara Hikmatul Yawmi muy daara ji ñu koy liggéeyal te liggéey bi doog a tàmbali te yaatu lool ñëpp xaj ci eh, ñu ciy talal loxo ñëpp lu ci waay mën a jàppee rek nga jàppee ko ci ndax liggéey suñu borom la ndax daaree la